gage boobu les procès nag ñu euh, amaloon euh, ci bésu tay bi ñu ngi ko def waaye nag parti civile bi ñoom teewu ñu fa woon bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu yi tukkee ci maître Khoureychi Ba di avocat bu Pape Abdoulaye euh, Touré verdict bi dinañu ko am aljuma ji ñu jëm ñu déglu ko. d'ailleurs procureur waaw bu ne e yow e da nga doon ñu may la renvoi pour GMI ñëw ana ne non non kay dañuy bàyyi noonu rek parce loolu bettuñu moo tax ñu ne ok nañu attee xale na tey taxaw wax wax bu rafet ni mu taxawee ci juge wane leen ñu ko doon waxal ak violence bi nekkul ci moom tribunal na ko délibéré ñoom balaa ñuy atte foofu ñu xool li ñu waaye mbag dañ koy gis dañ ciy gis seen bopp finalement ñu xam ne kii dañ ko monté le dossier bi ñu ko dóoree ba pare moo tax ñu téye ko indi ko foofu tribunal mais wax dëgg yàlla dañ ko war a bàyyi incha allah yaakaar nañu àjjuma bu jàggee jàmm dañu am euh, décision boobu nañ ko bàyyi complètement mu dem mel ni dara mosul am fàttali ni Papa Abdoulaye Touré tuuma yi ñu tegoon ci ndoddam moo di dafa bokk ci ab manifester boo xamante ne dañu ko euh, tere yooyu boobule manifester sax ñi ko euh, doon def moo di euh, bachelier yi ñu orienté wul naka noone bi mu ci noppee moom itam mu daal di xam ne ni takk der yi dañu ko duma mu yoroon sax ab certificat médical bu ko tere woon mu amal liggéeyam ni mu waree loolee moo taxoon sax boobule procès ñu dàq ko ba ci bésu tey bi ñu àddu jëmale ko ci euh, leneen mu di njabootu ñi nekkoon euh, ay militaire dëkkoon fële ca terme sud te ñu jëlee loolu leen seen seeni ay dëkkuwaay naka noone nag euh, maire bu Mermoz Sacré-Cœur daal di leen di jox centre sociocult culturel bu Sacré-Cœur 1 ngir ñu dëkk fa lu tolloog kon juróomi téeméeri doomu aadama ñoom ñoo fa nekk ci jamono ji Croix-Rouge ak itam ay médecins psychologues di leen fa dem di leen di seeti ngir dalal seeni xel waaye nag ñoom ñ am leen fay seet ci itam di leen di indil uh, seen uh, ndimbal ñu ondu ci ak fii ci centre socioculturel bu sacré kër famille militaire yi ñu génnoon ci seen kër yi ñu ngi leen di toppatoo bu baax a baax ay psychologue médecin ak waa Croix-Rouge taxaw nañu benn comité ngir accompagner ñi am traumatisme ñu nit ñu créer suñu comité de gestion euh, comité euh, sociale bi comité sécurité bi comité hygiène bi ak yooyu yëpp euh, def nañ ko fii Euh, teg teg nañ ko en place famille yi nag ñoom ñu ngi ñëw benn par benn. ay nit yu baax ñu ngi ñëw joxe seen ndimbal waaye ñoom nee nañu kenn du meeru Barthélémy Dias ci taxawaayam ci mbir mi. Euh, alimentation bi sax bu demee ba ñoom dañu ñëw di surveiller stock bi bu àggee à un certain niveau rek dañu ñëw renouveler ko. donc euh, ñu ngi leen ci gërëm quand suñ suñu sukkandikoo ci coordinateur bi lépp mot na waaye ñoom lenn rek lañu bëgg am audience ak njiitu réew mi. coordonnateur